ñoom seen xel dafa gàtt. 4 millions 4 millions de 4 millions gëm nga ko. gëm naa. gëm naa 4 millions ko dafa ma expliqué leen parce que yéen. boo ko trompé boo faut pas être démagogue yi c' est pas rek. laaj laaj ma on a dit. dañu est-ce que vous y croyez. les 4 millions de waaw la. pas mal léegi léegi. da nga waxul moom <laughs> da lay laaj rek. na ma laaj xam nga 3 millions. sept cent mille yi expliqué naa ko ci beneen télévision xam nga il faut aller au-delà de l'évidence ngeen xool mbir yi xool xool xool xool les éléments constructifs de ces trois millions sept cent mille gis nga l'élection présidentielle benn bés lañu koy def muy un dimanche nekk une seule date date boobu dañ naan kaa leen wate ñëpp duñ mën a wate dañ gis le taux d'abstention ni muy toll dañ ñoo xam ne dañu am empêchement soit nekkuñu fa wala dañoo feebar su ko defee ñun amoon nañ un million et poussière cinquante mille environ benn bokk yaakaar ñeneen ñi am nañu am nañu un million donc soo xoolee ne yow benn bés mën nañ ci am un million ñu ubbi parrainage bi le 28 septembre ñu dem ba le 30 septembre ñu ne am nañ 3 millions de 3 millions 700 mille parrainage mun na nekk. mais est-ce que loolu du ne ah, ah, ah, est-ce que nekkul nekkul violation euh, loi wu. déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet que man li ma soxla ci parrainage 44 321 laa soxla minimum le maximum j'ai besoin de 58 000 alors 975 yëpp li ki des nag yéen seen propagande la donc entre le 28 septembre ba le 30 novembre chaque jour dañuy xëy di dem di dem di laaj da fekk ku feebar mu ne décewaat parce que man damaa feebar nga décewaat euh, un mois après mu pare neen la da nga gis koo xam ne euh, dafay liggéey nga ñëw xaaju guddi këram te loolu sur les ça se justifie. de c'est pas loo xam ne. Hmm. pour benn bés la mais pour 60 jours la. juróom benn de toute façon de toute façon parrainage yi bataille bataille médiatique la bataille médiatique la euh, on va pas s'attarder là parce que des deux côtés ku nekk mu ngi avancer. une seconde une seconde mais c'est une seconde une minute une minute une minute. xam nga parrainage bi. ñun dañ ko def comme une campagne de proximité ñun dañ ñëpp itam en général. c'est propagande la. c'est une campagne anticipée donc nit ki lu la lu la neex nga wax mais la réalité des chiffres wala la réalité des chiffres mooy bis bu ñu demee conseil constitutionnel maa la wax deux cent cinquante candidats seront éliminés parce que du ñu am parrainage